ajmal neena inna alladi wér na li nga ni ki li nga xam ni kaana nekk na yaqillu di néew dégg nga wakafa te mu di la segul bépp musiba ak bépp mbugal ëllëg wakafa te mu doy la walis leneen xayrun moo gën minal kasiiri ci aji bari ji alaha lu di aji soxlaal nee na li nga xam ni néew na te la ngay ragal yépp mën na ko dàq te la ngay bëgg yépp mën na la koo xëccal loolu yem ca moo gën dugg ci loo xam ni ay difficulté la cay fekk da nga dem a dem a dem a dem ba dootoo tal sax jariñu ca li ngay tal kay moo di noo ci génne ak noo rek leen mbir moomu moo tax ñun nag ko am tariixa bu toll ni tariixa Cheikh Ahmad Tidiane nee na lu am moo la ko ëpple man lépp loo xam ne lii benn tariixa ma su ko man mu jóge ci yonent bi jaar ci Cheikh tem ci say loxo ñun la yem ci yaakaar naa ne yem ca moo gën te bokk na ci mu am nee na law tëzkuran bu fekkoon ne wérd nga mi at alfi aamin téeméeri junniy yoon junniy at fii kulli yawmin ci bépp bés boo xam ne jaa adikk na min ayaami di bokk ci bés yi nee na téeméeri junniy at bés bu ne nga wérd mi at alfi zikrin téeméeri junniy zikar kulli yawmin ci bépp bés nee na falaa tusaawi du yemoog marratal marratal farida benn yoolu salaatu fatiha ah loolu mu ci jublu salaata fatiha salaatu fatiha almajid balaa ji tedd mu wax la ni su la yàlla booleeg Cheikh na Ahmad Tidiane baaxee la ba nga dugg ci tarixam déglul li ñu la wax yam ca bul xër ndax xër day yàq mu wax la ni bu fekkoon ni am nga téeméeri junni at téeméeri junni at yooyu bis bu ne ci téeméeri junni at yi nga zikkar ca téeméeri junni zikrullahi ci téeméeri junni at yooyu loolu yëpp du yemook benn per salaatu fatiha bu ñu nangu loolu itam exemple la rekk bi doon laaj léegi bu ñu la nee benn peru salaatu fatiha mën naa ëpp euh, zikkaru téeméeri junniy at te benn peru salaatu fatiha nga di ko def ci trois secondes wala deux secondes waaw loolu bu la bo la jaaxalee da dem ci science nga dem ci instrument yi bande soixante enregistrement yi ñu ngi koy def ci soixante minutes bandu quatre-vingt-dix ñu ngi koy def ci quatre-vingt-dix minutes am yeneen enregistrement yoo xam ni bandu soixante yooyu def yu ñu def ci soixante ñu ngi koy def ci une minute te loolu création la rek bu jógee ci xam-xamu doomu aadama kon buy la waxee lii war nga ko mën a nangu dégg nga mu ni nag falaatu saawi du yemook maratal farida benn yoonu salaatu fatiha ani ah lu ci jublu salaatu fatiha salaatu fatiha al majida bu daa ji tedd boo amee loolu nag yemal ci kuddu dégg nga day ñu roof la ci ay mbas mu nee na wa in ata ndéem dikk na nag muntaqidun aji diingat tariixa beeg texte yi di aji diingat cheikh yulqi muy sànni alxujaj ay layam di di joxe argument rek di ko delloo ci diingat cheikh ak diingat teg teg ci tariixa bi nee na bu mu la saf dara la dul dikk ndax fa nasxu as laa yuf nii du mën a jeexal bi am waa ji lu jéej ci duusi géej nee na bu mu la faale mu ngi mel ni rek ku jël pot ñëw ci géej di as di tuur lu as booba mënul wàññi ca géej ga nee na euh, kontari aji kontar du ko mën a wàññi tariixa bi waaye nag loolu mënul ñàkk ndax xol day jublu di dëddu xol li mu jublu Ken manu ci dara limu mu dëddu itam ken manu ci dara dégg ni ndax neena motax farabuna sunu borom al muqbilu moy aji jubale bil qulubi ci xol yi neena xol lu mu jublu rek yalla la neex bu jublo lu lu baax mbaxuk yalla wa mudbiruha moy aji deddelen biha ci xol ya anil majloo bi walis li ñu jublu la nee na xol bi li mu jublu mbaaxu yàlla ak ndimbalam la xol bi li mu dëddu itam maanduk yàlla la rek waaw kon su ko defee nag dooni lu baax la nga xam fas ko bëgg ko moom la ñëpp di xam euh, di ko fas di ko bëgg déedéet du noonu nee na fa cheikhuna cheikh na Ahmad Tidiane nag axasa jële na maa yaqulu lépp li mu wax anil la yi jóge ci yonent bi nga xam ni alamu xam nga ko yaa xalil yow xalit bi nee na ku ni sayiduna rasulullahi sallallahu alayhi wa nee na yépp a ko xam su ko defee cheikh li muy wax mu ngi koy jële ci moom jële ko ci xalaati boppam jële ko wu ko itam ci fenn mu ngi jële lépp lu mu wax mu ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana sallallahu alayhi rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi wa karama nee na wa raabiu shuruti ñeenteelu charte tarixa bi sallallahu ala nabiyina sallallahu ala nabiyihi alladi istafaahu nee na ñeenteeli sarti tariixa bi lu zoomuhu mooy taqoog taalibe bi sharaa diine ji bi kulli xaalin ci jamono yépp nee na ponki diine waxoon la ni shahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah qaamu lsalaat wa itaau zakat wa sawmu ramadan wa xajju lbeyti liman istataa ilayhi sabila nee na boo bëggee kat tariixa bi ñu bàyyi la ci wala tariixa bi jariñ la nee na boo ko bëggee nag na sa yooyu mat sëkk ndax lu manque ci sa sariya rek tariixa bi daal yàbb yow nee na ba tey bokk na ca sartiya wa salaatu julli fil jamaati ci mbooloo taalin aji topp la te comme alquran dala noon warka'u ma raakiina na ngeen dem di ànd ak mbooloo ma di julleendoo ñoom ndax ngeen am lu ngeen lu mbooloo te lu ñu digle la nee na nga ñëw sa sarti tareexa mu wax la ni julli ci mbooloo sart la ci sart yi mu nu bokk na ci sart yi mahabbatu cheikh sopp cheikh na ahmad tijaani bi lan ci lu dul dagg ilal mamaati ba ci dee nee kookukat kooku kat xaamisul anwaa i mooy aji juróomeel ji sart yi sopp Cheikh na Ahmad Tijaani sopp lépp lu jóge ci moom sopp ay xulafaawam nee na sopp ay muqaddamam sopp ay taalibeem nee na loolu bokk na ci sart yi dégg de mu ne xalifatu cheikh xalifa cheikh na ahmad tidiane kaana nekk na loo di ko ñeel ka cheikhi ni ki cheikh na ahmad tidiane dégg nga day fii maa ulima ca la nga xam ne xameef na ko wala nga ne xalifatu cheikh xalifa cheikh tidiane ka mu ngi ni ki cheikh ulima la nga xam ala jamia ma ci nga kaana nekkoon na loo di ñeel cheikh na tidiane mun la na xalifa cheikh nee na kooka da koy wàcce wàcce waayu cheikh lépp loo xam ni joxoon nga ko cheikh na ko ko jox lépp loo xam ni warmaaloon nga ca cheikh na ko ca warmaal ndax mooy moom te kat bu ko weddee loolu yat wa daal di la dal ci saasi dégg ah loolu bu la jaaxalee léegi commissaire na yebal benn inspecteur de police mu ñëw woola nga bañ waaw waaw nga bañ ni ko aw maag yow affaire commissaire la amal affaire waaw bu ngeen ca demee ba sotti di nga xam ni mooy commissaire moo tax mu ni waa ti an ba tey dégg nga wa axdim na nga liggéeyal al muqaddam muqaddamu tariqa bi walaw takuna doonte nekkoon nga saax yow sama àndandoo alama di ëpp xam-xam minhu ci muqaddam ba wa atiyaan na nga topp ndi déng ndigalu muqaddam bi walaw takuna doonte nekkoon nga alama di ëpp xam-xam saax yow sama àndandoo minhu ci moom mu nu itam Euh, muqaddamu tarixa bi am ndigal li ñu teg ko ca kanam te yeggoo foofa nee na na nga ko tarbiyewu liggéeyal ko ndigalam it na ko topp doonte sax géeju xam-xam nga te moom amul xam-xam waaw doo ko ëppal xam-xam lool itam na nga déglu ndigalam tarbiyewu ko loolu la tarixa bi laaj dégg nga nah, ndax boo demee ci quartier diplôme yu bari amu ca solo xam nga quartier lu ci am solo garaat ah amal amal diplôme yépp yépp yépp yépp am leen ba nga xam ni dajal nga nga dem quartier waaw boo demee booba xam ni diplôme amul solo ci quartier garaate fa am solo ngoog noonu la affaire tarixa bi mel muxaddam bi loo ko ëpp ëpp xam-xam te teg nañu ko fuy la tegul nekkal ci suufam rek dégg nga ndax wa nax mu ak noseem fi silkiya lillaay aji nekk la ci eh, sàppees gaay yàlla ya foofa la nekk ndax Cheikh Khalifa daana wax ni ki nga xam ni dañu ko xëcc ba dugal ko ci sàppe gaa yi cheikh nee na kooku bu xaftaanam gàttoona gàttoo nit gàttatul gàttatul léegi iyaaka nee na na nga wattu sa bopp yëg fika bu ko defee fegal la lépp loo xam ne lii wàññent la wala tubaax yi nee na te bul puukarewu bul gis sa bopp tarixa bi nanguwul gis sa bopp nanguwul naw sa bopp nam mu nangoo ñeney diplôme déedéet nee na salaasatun am na ñett yoo xam ni laay saxi fu du woyofal ak du doyadal bihim ci ñoom illa munaafiqun ndare naafiq xabiyun ku di aji réer mubhamul ka di kuy muur xolam nee am na ñett yoo xam ni nee ku leen woyofal wala nga ñàkkal leen solo walla nga mi leen ñett yi rek am ci yow nifaaq wala réer wala ngëlamte ñett yooyu mu ni fa aalimun nee na boroom xam-xam bu jëfandikoo xam-xamam piir sànku ca dara wa muqtidul imaam yi njiit lu maandu du jalgati benn yoon responsabilité bi ñu ko jox kazaliki noonu yoo sey ba ci boroom bi jaaw fil islaam ci lislaam ñetti ñii nee na koo xam ni kii dafa am karaw gu ñuul dugge ko ci lislaam di ca nekk ba weex tàll nee na ak koo xam ni kii dañu ko teg ci kanam jullit yi ngir yàlla mu nekk fa yàlla rek bàyyi yàlla xel bàyyi lañu koy confier nee na ak boroom xam-xam bu jàng ba ne xar te fasul yéen a jalgati benn xaraf ci xam-xamam nee na ñii ku leen di doya dal xamoo lu xew xamoo li xew waaw nee na bokk na ci sàtt yi adamul am ni woo ñàkk wóolu bi makrin laay ci pexem suñu boroom ne ah man yeggal naa man tarixa bi gën ci tarixa yi laa ñaan ñaan naa ko ci boroom ndigal te dégg naa li ñuy wax ci tarixa bi jeex na yàlla koy wàccoon naa man xaw ma bu kenn de waaye man mii day day baax tey baax ëllëg rek ab pulaa def de pulaa def sëñ Babacar Si dafa daa wax ne lekk sa xel di teey moo gën lekk sa xel dal li ne yi ngir tere moom suñu borom an am ni makrillaahi ci pexam suñu yàlla yàlla ko waxoon kat laa yëmanu makrallahi illa alqawmul xaasiruna nee na boo demee ba nga xam ni wóolu nga pexam yàlla maanaa dem ngaa dem a dem ba ni ah teral na ma jeeg jeex na du ma teral di ma teddateeti nee la ku yàlla yàllaa ko wax de ku yàlla wala ku nar perte rek mooy melowoo noonu waaw te yàlla wax na ko ci alquran lama nu bi nu bi lama nu middu dégg nga lama nu midduum bii min maalin wa banina nusaari'u lahum fi lxayraati bal laa na yàllaa ko wax nee bu ma la joxee teraanga teraangay àddina moo xam alal la moo xam daraja moo xam wér moo xam barke moo xam kàddu nee maa nga lay seet rek nan ngi ciy jëfandikoo topp sa ginnaaw rek di la yor nee na woon minhu bokk na ca charte yi ñu digle ci tarixa bi an laa yasdura ba bañ a jógee sabbun ngañ waadaawatun ak noone wa buxdun ak mbañeel jaraa boo xam ne dow na jan ba cheikh ci wàllu sëriñ bi nee na bokk na ci charte tarixa bi sëriñ bi bu ko ngañ bu ko noonu bu ko bañ bul bañ mu xaddamu tarixa bi bu ko noonu bu ko ŋàññ nee na itam ña taq ca sëriñ ba buleen bañ bu leen noonu bu leen ŋàññ mbokki taalibe yi noonu minaha bokk na ci sarti tarixa bi lu zoomul wirdi nee na taqoo wirdi wi lil wafaati ba ci dee nee bokk na ci sarti tarixa bi nee wird wi nga jàpp ko waaw waabud rabbaka xatta yatiyekal yaqin Cheikh Tidiane naan Cheikh Tidiane service su diine kenn du ci retraité ndax diine kenn du ci retraité yàlla waabud rabbaka xatta yatiyekal yaqin la sunu boroom wax naka noonu tarixa bi itam del wird di nakk rek feek yaa ngi dund di ko man wird waa ngi lay war ba bëggay wuy sa borom mooy wal i'tiqaadu fas nag bi shuruut sharti yaati dana dikk nee na ba tey ki noonu bokk na sharti salaamatu mucc min intiqaadin ci kontar ak diingat sa xol daal bu ñu ko opéré woon visité ko duñ ca fekk dara ci kontar ak ci bu jóge ci yow jëm ci sëriñ bi dégg nga day jëm ci Cheikh Ahmad Tidiane wala ay xulafaam wala ay muqaddamam asanaa yal na musal nag allahu yàlla min al inaadi ci ndëngte waaw ndax yooyu yëpp day am mu ni wal yëkkun na nekk ak tilmiisu taalibe tarixa bi na zikri di ku ñu jox ndigal yi wérd nee na yu sa kurus bu rafet commencé di wérd rek ak di fi fa te kenn joxu la mu musiba bala kenn du ko def mu jëte ndigal la min xudwatin ci laa la moom roy waay ba la kay xalifa ba ca jamono ja aw man wala ka nga xam ni nee na yu xarru def na waaw nee na aw man wala ka nga xam ni aw man wala ka nga xam ni yu xarru def na saxal al isnu ndigal la loo ñeel ko dégg ka nga xam ni kii daal mooy xalifa bi wala boo ku am ndigal lu wér la nga jëm ci mu dem nga dem ca mu jox la ndigal loolu daal moom lañuy ñuy ndax itam amul benn mouvement walla benn euh, mbooloo moo xam ni mbooloo àddina la te ngay dem rek waaxu dugg bokk am nay formalité bu dee parti am na lu la cay dugal bu dee club am na lu la cay dugal neka noonu neka noonu kon tarixa bi doo ñëw rek di wér waaw dégg nga nee na wal ijtimaau daje lil wazifati ngir wazifa wajaba war na nee na kañ nag in kaana ndem am na ixwaanun ay mbokk yu mën a daje def géew wazifa wa maa xiifata ragaleeful alxalaba noteel su fekkee ni mbooloo mi am nañu te mën a def géew wazifa te du jur dara nee na nañu ko def su dee jur loo xam ni nag dana dem ba ëppi loxo ñu seet teeylu dégg de waaw nee na nag mbooloo moomu mu ngi commencé ci ñaar ba ci ñett dégg ndax géew wasifa dafa dafa am solo lool dafa am solo lool comme tariixa bi dañu cee génne xalwa ni bokkatu ci ndax tariixa yi jëkkoon xalwa la ñu daa doxale tarixa bi ñu nit ñu génn ci xalwa nee na comme yàlla atte na borom tarixa bi dindi na xalwa dugg xalwa nekk ci biir te ka xamuñu loo fay def umpale ñi ci biti ñi ci biti umpale la loola mu dindi ko ci tarixam muy tarixab àndandoo jëflente li ngeen war a jëflente ci àddina jëflente li ngeen séq doxanteeg mbokk dégg nga bu ñu géew wasifa jotee ngeen àgg ca géew wasifa ba te di ngeen ci am lu ëpp lañ waroom xalwa daa daal am kooku ku ko am yaakaar naa ni war ngaa xam sa géew wasifa mu ngoog jaratu ngay dugg xalwa bu la nit ne dugg xalwa nee ko man suba ma dugg xalwa ngoon ma dugg ko waaw dégg nga day te boo demee ci suñu Cheikh Tijaani woyam wa am na nu ma ko cay waxe fa ka annahum في الذكر والادب الذي في الذكر من ملا السماء الروحاني مو امنا لو خامني كوكو خام دانكوي كوكو ام دانكوي خام واي لي موي ام لو خامول دينكو تي بيتك دم تي لوكو جارول دغ نيلا ومن يكون كيب كو خامني نيكنا يحضر دي تيوي حضرتها تيوي واي جيو وفيبا fii kulli yawmin ci bépp bés mu ni fasan boo bàkkaaram xat yox faru def na ko jég ko jéggal ne la gee wasifa day fari bàkkaar soo ko manee taqoo doo ko manqué mukk nee na du la bàyyeeg bàkkaar kon loolu it jar na lu ne boo sax Maodo ni fala wa alimtum bu ngeen xamoon maa laha li ñeel géew wasifa min fadlin ci ngëneel ateytumuha ngeen dikkee ko watan donte da ngeen di raam sax lil li ngir sàkku ngëneel la nee na su ngeen xamoon li nekk ci géew wasifa te ña ko xam-xam ko te waxuñu leen ko lu dul dañu koy bàyyi noonu ba ëllëg su ngeen xamoon la ca ne nee na donte da ngeen di raam sax dingeen ngeen raam ba yegg ca géew wasifa ba teewee ko kon loolu jar na lu ne nee na mu dem ci zikrul jumaati nee na bokk na ca sartiya wa zikru nee na zikar baadal asri ci ginnaaw takkusaan fii arooba ci bésu ajjuma kalimatul ixlaasi baatu laa ilaha illa allah lil xuruba ba ca soga nee na zikrul jumaati nee na bu fekkee mbooloo ma la dañuy am diir bu ñuy war a commencé ndax duñu bàyyi te jant sowul diir boobu ñu ni ilaa baqaayi saatin jëm ci ba desu waxtu wa nisfun ak wala genn wàll waxtu ñu ni buñ demee ba ni ah jant bi kat li ko teree so waxtu la wala ñu ni li ko teree so genn wàll waxtu la mën nañu koo commencé continuer nag waaw ba ba jant di so ñu tëj julli timis dégg nga de mu nu yentasiru dana mu yandikoo almashgoolu ku ñu soxlaal ka ka nga xam ni ki ñëwul ca géew ba doona xul fi walis ci lu lu wuute ki nga xam ni kii nag am na ngànt lu ko dog ba ñëwul ca ba nee na kooku moom moom la dayalal waxoon nañu ko ne woon nañu am nañu ni téeméer junni ak am ñu junni ak ñaari téeméer am ñu ni junni ak juróom benn téeméer am ñu ni ñaari junni wax nañu ko nee nañu itam laa ilaha illa allah su la neexee def ci sa wasifa yépp su la neexee allah allah nga def ci sa wasifa yépp su la neexee jiital laa ilaha illa allah mujje allah ci nii nuy defee su la neexee safaan ba nga jiital allah sax xañ nañu ko mujje laa ilaha illa allah lu la ci neex def waaw nee na bokk wa suuratul ixlaasi ak soo saaru lixlaas ni ki xul wallahu ahad تسعمائة جرومي جروم ينتي تيميريون فخدرها موي كم تلايو كماس ما بي دخلوا أخواني بدي أبني وقت ودس ولا جل وعلى وقت كيتني نكوي تولى لي تي دكان تبغى خمني من قفا جانغ خلو الله جروم ينتي تيميريون واو لكن وانت لفي نكنا مع البسملة عندك بسم الله الرحمن الرحيم نحن نك xool boobu nag daa ànd ak bisimilahi rahmaani rahim boo ci defee limu diggante bi nga xam ne man nga caa def limu juróom-ñeenti téeméer nee na diggante boobu moom la ñuy euh, dayal ci zikru jumaa bi ca ña ca mbooloo ma waaw mu ni yëg fii dana doy fi fadlihi ci ngëneelam xudóorul Moustapha teewuk yonant bi salla yàlla dolli xewal alay ci moom rabbuna sunu borom wa sharrafa te mu dolli ko teraanga ndax nee na bu dee wasifa yonant bi ak teewam mooy ca juróom-ñaareeli feri jëwhëra lay door a teew waaw ci lay teewee ak xulafal arbaa waaye bu dee nag wasifa jumaa buñ ne awusu billaahi min sheytaan rajim rek mu teew si waaw loolu moo tax ñu wax ni kenn warul la fexe fexe ba mu di la rëcc donte duñu ko fay نانا نك لا تقرأ أن فخيل ببول جنغ مك جوهرة جوهرة الكمال بغير ما طهارة تلول لاب ما إيتن بوتي كو جنغ دوخ فل تعلم نغا خم لول دي بول فخي فخي با جنغ جوهرة الكمال تلول نجاب بو تيمي باي كفا تعاو وغير مجلس نانا بول فخي فخي با دو جنغ جوهرة باي جنغ جوهرة الكمال تلول توق لكن اللي في نك أبدي لو تيف نكو عشرين يالفوك min salaati fatihin ci salaatu fatiha wiran ci toftale ni waxtu itam bëgg nañu ni ñu bëggee jëwaratu kamal nga di ko jànge rek ci jàpp noonu la ñu bëggee nga di ko jàng ci toog waaye bul dox di ko di ko jàng donte sax may nañu la ko il ngir xaadirun aji teew la shafiu naa aji ramm suñ te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal xulafa fi majlisi dikri ci jataayu wasifa bilaa xulfin ci lul wuute wafaa boobu dikk na ñu ni comme dañu ni boo yëg see ci juróom-ñaareelu ferxi jawhara yonent bi day teew ak xulafal arbaa loolu moo tax ñu bëgg koy jàng toog su fekkee yaa ngi jàng sa wasifa di dem di dem di dem ba yëg si foofu it bëgg nañu soo ko mënee nga toog yeggale ko ndax loolu ñu wax su fekkee nag man loo ko ni ki eh, situation bi permettre la ko daal na ngay def continuer di dox rek mo jang sa jaww xëra di ko sañ waye nak julli gën ah ñu ni la nak ñaar fukki feri salaatu fatiha moy remplacer jawharul kamal ci boko waru la a motax raa ka al arbaa ñentiya de nga ni wal ashrul ak wal ashrul ak ñaar fukki ya fal axla bu li gën a not al ashruuna mooy ñaar fukki yi fastabina na nga yeewu na nga birlu laajal bu baax Maodo nee na am na ñoo xam ni kay nee nañu au lieu que woon ñaar fukki peri jëw ñaar fukki peri salaat fatiha ñaar fukk ak ñeent am nañu koo xam ni mooy remplacer fukki jëwhar ak ñaar waaye Maodo nee na li gën a siiw ñu gën ko jëfandikoo ñëpp wax ko mooy ñaar fukki per yi rek ñaar fukki salaat fatiha dañ la nga laaj nag nee na waxas sa sa jàkkle na a tamasini saydi ali tamasini alman a jàng jawharatul kamal bi raakibin ci aji war laa xayruhoo du caa gi ku dul aji war aliyu ku di aji kowe nee dégg nga de sidna aliyu tamasini nee na moom jàkkleel na tere gi ci ki war waaye nag du caa gën ak lu lu kawe rek ndax dafa am ñoo xam ni dañuy lu lu la teqaleeg suuf rek tax na dootoo jàngati jëwadu kamaal moom mu ni war rek waaw war daaba rek waaw ni ki wala gëléem gi wala oto bi waaw waaw ba loolu moo tax nga sañ a ci kaw étage di fa jàng waaw war lañu wax dégg nga wa amna am na lenn ci njiiti bi at atlaxa koo xam ni boyal na dégg nga boyal na tere ga biru ko bi ci war rek am na koo xam ni ñoo xam dañu ni a ah, war rek la nag waaye lu nuru kowe te du warit bokku ci wal baadu dégg nga day lenn ci waa tariixa bi xas ko jagle na ko bi kër rukkoo bi ci luy xaw a yem ak war am ñoo xam ni dañu ne ah lépp loo xam ni nee nga ca tong rek ak lu mu waaw waaye Maodo nee na wa taahirun aji laab ji yaram ak yére yem si koo xam ne mu ngi dox bi turbin ci suuf taahirun bu dee aji laab yaqra'uha sañ naa jàng jawharul kamal bilaa xilaafin ci lu wute zahirin bu dee aji feeñ Maodo ko wax nee na laab nga sa yére laab na yoon wi ngay jaar laab na nee na sañ ngaa jàng jawharul kamal ci dox bi waaw dañ koy jàng di dox everyone.